yu société civile war a waxtaan ak it dignitaire waxtaan ci li nga xam ne kon moom mooy euh, tolluwaayu réew mi rawatina euh, lii di euh, politique boobu le dialogue nag gis ngeen ne ñu bëri daal ci opposition bi dañ ne duñ ca bokk ndax nag li ñuy woowee terme de référence muy nag kon poñ ya nga xam ne ñoom la ñu war a waxtaanee si boobule dialogue dañu daal leerul seeni bopp te balaa ñu caa dem daal dañoo war a am lu leer a leer kon door ga dem toog waxtaan ak nga xam ne moom mooy njiitu réew mi eh, Macky sàll loolu sax tax ba ñii di waa front Euh, maanaam waa F24 ñoom xam ngeen ne kon euh, woote woon nañ euh, li nga xam ne sax moom mooy ab contre dialogue ñu waroon ko amal ba sub tey bi fële ca Parcelles Assainies wante nag la ca mujjee am ci ay xibaar moom mooy ki nga xam ne moom mooy préfet bu Ndakaaru daa tere ndaje bi ni mel mu ne nag si jamono joo xam ne fi mu nekk nii kon mbir yi dafa daal jaxasoo kon ñiy ut euh, ana naka la jàmm amee loolu nag tax kon ba mu tere euh, bile euh, ndaje waa F24 waroon amal kon foofu foofale ca Parcelles Assainies ñi nga xam ne nag ñoom ñooy organisateurs ya ñoom nag xamle nañ ne kon dinañu dëppoo ak boobule tere wante nag teewul ŋàññi nañ jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko seen naataango bii di Aliou Sané moom mu ngi ñu moom mi nga xam ne sax kon ñu ngi ñuy xamal ne ba suba tey bii. Euh, déféré nañ ko kii de avocat moom moo ko xamle ñu ŋàññiit euh, ñu ne daal justice Sénégal na muy doxee ak jàpp yu bëri yi nga xam ne kon ñu ngi koy jàpp ay nit loolu lépp daal euh, ŋàññi nañ ko ba suba tey bi gannaaw bi ñuy jàkkaarloo kon ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xabaar yi ba léegi si dialogue bi la ñuy desandi ki nga xam ne moom mooy euh, mi Diaz te moom sax euh, xam ngeen ne moo fi doon euh, wax ne boobu la dialogue moom moo ko sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall moom nag démb gannaaw bi mu doon amal daal ab waxtaan ak fi nga xam ne moom mooy ci 7TV kon ci la xamle ne. boobu la dialogue du ca dem moom it mbirum terme de référence boobu kon daal la fa wax nee na kon li nga xam ne moom mooy terme de référence yi ak poñ ya nga xam ne kon moom la ñu waxtaanee ci boobu la jaloog faw daal kon mu xam ko mu leer ci boppam. mu doog a dem euh, toog ci li nga xam ne euh, moom mooy euh, boobu la dialogue bokk na nag ci li nga xam ne moom nee na bëgg nañu waxtaane ko kon ci boobu la dialogue moom mooy mbirum troisième mandat mbirum parrainage ak mbirum fichier électoral ak nag détenu yi nga xam ne kon nee na sax toll na ci 400 te ñu koy woowee ak détenu politique wante iti mbirum carte électeur moom daal nee na yile poñ bu ñu d'accord ne dinañ ca waxtaan kon boobu boobule dialogue dina ca dem wante mu ne bu amul nag du dem ci boobu boobule dialogue moom Barthélémy Diaz bu dee nag euh, kii di xalifa Sall ak waa taxawu Sénégal ñoom nag xamle nañ ne kon euh, dinañu dem wuy ji euh, boobu boobule dialogue dinañu waxtaani ci jamono jooju sax ñu yëg ne ñi nga xam ne ñoom ñooy waa parti démocratique sénégalais ñoom nag ca njëlbeen xam nga ne dañ doon teg ay conditions yoo xam ne kon mooy tax ñu wuy ji ci dialogue boobu la wante nag xibaar dañ ca mujjee jot moom mooy kon waa parti démocratique sénégalais itam dinañu dem kon wuy ji. boobu boobule jaloog eh, keneen koo xam ne daf ne du dem ci bile dialogue moom mooy Pape Djibril Fall mi jiite kon eh, parti bii di les serviteur moom nag xamle na ne itam boobu la dialogue du fa teg tànkam ba léegi mbirum terme de référence yi kon la joxeñ baaraam nee na daal terme de référence yi kon dafa war a eh, leer te it dañoo war a wone lu leer kon ba tax mu bëgg a dem mu mën a dem kon si boobu boobule dialogue ba tax na kon moom ak i ñooñu itam moom ak i ñooñam du ñu kon dem si boobu boobule dialogue nga xam ne ba suba tey bi dina euh, tàmbali. beneenu xibaar lañ koy jeexale muy euh, mbir moom nga xam ne fi mu nekk nii mu ngay lëmbe euh, ca Touba muy nag ab jàngalekatu daara boobu daal ñu naan dafa sàkku. ay euh, xale lu toll sax ci ñaar fukki xale ak juróom ñaar euh, la ca bees nag ci xibaar mooy ñi nga xam ne ñooy waajuru xale yooyu nee nañ nag euh, jot nañu kon daje ki nga xam ne moom mooy porte parole bu xalifa général des Mourides di Serigne Bassirou Abdou Khadir waxtaan ak moom ñoom nag euh, dañ doon ragal daal ne est-ce que mbir mi du doon loo xam ne dinañ ko nëpp nëppal wala boog la ca war duñ ko def. ki nga xam ne moom mooy porte-parole euh, bu xalif général des Mourides di Serigne Bassirou Abdou Khadir ñu ne dalal na seeni xel. xamal leen ne daal boobule mbir dana am taxawaay ba nga xam ne moom moo ca war ki nga xam ne moom lañ tuumaal nag ne moo def euh, li ni mel moom nag daa réer mër ba ba léegi kenn gisu ko lii leen doon tey ci ay xibaar rablu seen teewlu di leen jox daje ëllëg jaa jëf